bismillah asalaamaaleykum ñaanal nanu leen jàmm sunu njàngatu tey ñu ko jëmale woon ci benn découverte bu ñu amal ci mala bi di baaxooñ ñu gën ko xam ci corbeau ci làkku français moom baaxooñ mi nag mu nekk benn mala boo xam ni dañu ko jàppe ni ki benn ci mala yi gën a muus bu ñu sukkandikoo ci ay njàngat yoo xamtukat muy étude scientifique ak ay njàngkat yu ma xel xam muy étude psychologique moom mbaxoñ ak donte diisaayu yaram demewul noonu juru baaxañ mu ngi représenté deux virgule sept ci téeméer muy deux pour cent ci lafam muy masse bu yaramam waaye nag bu ñu ko gam-gamlee ak yeneen xeeti ndund yi dañuy wax ni ñoom ñu ëpp ci ñoom seen diisaay yuur moo ngi nekk lu ñuy mën a gam-gamle ci un virgule muy seen diisaayu cerveau bu ñu ko nattee ci seen lafu yaram muy seen masse corporelle. ci xeeti piège yuñ koy tegal wala yenn xeeti clé ngir mën a natt intelligence am muy ak yewuteem ak xariñteem dañuy gis ne ginnaaw ak tàggatu gu gàtt. day mën a miin wan yoon lay jaar ngir mën a découvrir wala ngir mën a feeñal wala ngir mën a décoder code bi ñu ko tegal te mu nekk loo xam ni faw day soxlawoo benn intelligence ak benn présence d'esprit yi ñu gis ni moom baaxañ bi ñu miinal muy baaxañ bu nu adopté day décortiquer mbooleem élément yu lëmu yooyu waaye itam bu ñu xoolee moom ci boppam day mën a jëlal boppam taxawaay bi war ngir saafara ay jafe-jafeem wala ngir faj ay soxlam ci yenn circonstances yi ci biir natiire bi wala ci ak nekkam bi ñu demee ci atum 2014 benn njàngu ne muy benn iniversité bu nekk Nouvelle-Zélande dañu doon évaluer muy doon jiima màndaxe nanduk lii di baaxoñ muy corbeau bëgg a natt naka la ak fan la intelligence am tollu ak naka la xariñteefam wala ak xariñteem demee ñu tegal ko ndox ginnaaw ba ñu ko xawee maral bëgg xool nag moom bu bëggoon a naan ban intelligence lay jaar wala lay def ngir mën a naan ki ñu koy nettalee ci Go for English niki noonu nii la lii di baaxañ bi daal di def te mooy daa jël këf yi ñu ko tegaloon ginnaaw bi mu jiimee naan jutu ndox mi mu jël këf di ko dugal ci ndox mi ba jot ndox mi daa di tàmbale naan ñu ni bu ñu nattee intelligence su dañuy gis ni day xaw a ak xale bu am juróomi at jàpp juróom ñaari at naka noonu itam ay gëstukat yu nekk ci njàngu ni bu Tübingen ca Allemagne dañoo feeñal muy dañu amal ay découverte ci di Baxañ ñoom ginnaaw bi ñu amalee seen ay gëstu ak seen ay njàngat ñu conclure ni moom lii di Baxañ comprendre na maanaam nànd na li ñu tuddee concept de zéro ñu ni bu seetloo lii di Baxañ dañuy mën a tënk ci ni moom mën na définir ni lii di zéro concept numérique bi suñu ko doon évaluer wala bokk ñu ni suñu ci doon yaatal mën nañu wax rek ni baaxañ moom xam na ni un moo gën a bari zéro waaye nag li leen jaxal ana naka la mala bi mën a defe lii wala naka la mën a xàmmee lii waaye itam li leen jaaxalaat moo di ne mala wi wala mala bii di baaxañ bii muy korbo li fekk moo ngi am li mu dunde du mën a pratiquer intelligence boobu waaye balaa moo mën a génne li ci xelam daa fekk ni xiif na ba soxla walla mu mar door a mën a feeñal yanju xelam ñu ni comme moom lii di corbeau muy baaxañ mala la boo xam ne di jëfandikoo xelam waaye di man di ràññat li ay mbir yu bokkul waaye di man di di ay code yoo xam ne ku yeewu dëgg ku xarala moo koy mën a détecté waaye ñu ni bu ñu xoolee moom lii di baaxañ yëmul yuur ak doomu aadama waaye ci biir ak yuuram am na benn zone bu concentré ci ay cortex cérébraux ñu ni xëy na loolu niiru wum ko niiru doomu aadama mën naa waral mu àgg foofu mu àgg ci intelligence moom baaxañ nag itam ci njàng di nga xam ni xamtukat yi dañu koy faral def ñu ni daa nekk mala boo xam ne day tollantoo maanaam benn jabar wala benn jëkkër lay faral di am maanaam peer la ñuy faral di nekk rek ci gàttal ni ñu ko xam ci suñu làkk wala bokk ci suñu waxiinu tey waaye nag ñu ni li ñu seetlu ni lu muy gën di jëm mag ci la ak xelloom di gën di yànj waa itam ci lay gën a naqari deret ci lay gën a agressive niki noonu itam moom lii di baaxoñ mu am làkku boppam waaye ci biir làkk woowu muy noonu muy sabe di communication bii dox ci diggante mala yi ñu ni moom nag daa mën a tukki lool tukki yu sori waaye ci biir tukki yooyu dañuy fexe bay adapté saa bu demee ci beneen zone yeneen moroom yi baaxañam yi ba ñu mën a dund yenn saa ñuy def genn caaw waaye itam ñu sedduwaat ci njàngati xamtukat yi ñu ni saa soo xamee ni benn ci mala yi dee na muy baxañ dañuy gis ni yeneen baxañ yi dañuy dajaloo ngir dëjal ko suñu ko mënee wax waaye itam duñu yem ci loolu waaye dañuy gëstu ana fan la pekk bi bawoo maanaam crime bi muy chaîne de crime bi maanaam ana lan moo ko rey ak fan lañu ko reyee ak yan circonstance loolu da leen di may ñu mën a bàyyi xel ëllëg bu ñu xamee en réalité ci enquête yi ñu def lan moo ko rey ñu man di moytandiku bu dee xeetu piège la wala bu dee benn danger boo xam ni mu ngi leen di yot ñoom ñëpp waaye ñuy wax ni suñu seetloo ni fi wetu seen moroom moomu dee dafa am aw ñam wu fa nekk muy nourriture bu fa nekk benn ci ñoom du lekk grâce ci seen intelligence ndax seen xel day jax ni xëy na seen mbokk moomu dee loolu mu lekk ko rey waaye itam ci intelligence bu malade bi muy Kobo dañu ñuy wax ni tey su fekkante ni nit de leen a tooñ wala da ko tooñ am xelam am na yanjuk mën a xàmmee muy am reconnaissance faciale pour xam jëmu ji doon def lii kan la waaye dañuy wax ne dana mën a takk loolu diirub juróomi at te saa su amee am posé muy occasion ngir fayu mën na def ñu ci noonu ay gëstukat yu benn ci université yu Washington yi walla yu université bu Washington day xamle ni dañoo jëfandikoo woon ay masque ngir ji ma natt lii di corbeau yi waaye jim leen a waaye nee na li ñu seetlu ni mooy saa soo xamee ni def nañ benn band muy def nañ benn benn jàll lu ñu gën a jige groupe bi la gis ni ñoom lii di baaxoñ yi ci la ñuy gën a jël seen matuwaay ngir waajalam congu waaye itam ñu wax ni ñoom lii di baaxoñ yi du càggintug lu bon luñ leen def rekk lañuy ñuy fàttaliku waaye noonu lañuy ñuy fàttalikoo lu baax ndax dañuy wax ba léegi ci njàngat yi wala ci gëstu yi benn xale lu jigéen bu séeral lu doon dundal maanaam da doon xont benn baaxoñ ci benn jamono ginnaaw loolu baaxoñ bi mujjee di dem saabu bu dundee dem di di ko ëndaaleel sëricë hmm. muy ay cadeau ci jardin bi nga xam ni ca la ko daan xontee hmm. mu def ko ngir delloo ko ko njukkal ak ndokkeel kon lii hmm. mooy li nga xam ne ay njàngat la yées amal ci lii di Corbeau muy baax